kuy dem ci euh, élection nag da ngay am programme dafay am loo xam ne boo ca yeggee loolu nga nam ma def ñun ñu jàpp ni l'Assemblée nationale nit ñi nga fay dugal lu ñu baax baax ak lu ñu am am xam-xam boo changé institution bi lu bari duñ ko mën a def parce que problème mu Sénégal du rek walla du sax problème mu nit ñi parce que nit ki mën naa baax mbaa mu bëgg lu baax waaye bu ñu ko dugalee ci institution boo xam ne da koy gàllankoor ndax loi yi ak réglement yi baaxuñu dañuy mujj nit ki bu bëggee yëngatu sax du ko mën ndax institution bee baaxul moo tax danañu fexe li ñuy njëkk a def mooy assemblée nationale ci boppam la ñuy réformer transformer ko li ñuy def sax refondation ndax dañuy ñun dañu bokkoon ci assise nationale bokkoon ci ñi liggéey ci commission de réforme des institutions ñun ñu bokk ba tey ci ñi nga xam ne gëm nañu ni yooyu projet yu ñu war a yëkkati la yu ñu war a fonk la yoo xam ne war nañ caa dem tibbi li gën pour mën a doxal réew mi te yooyu yëpp dañu ni assemblée nationale war nañ koo réformer donc loolu mooy li ñuy njëkk a taxaw ci réforme assemblée nationale maanaam règle ak doxalin yi nga xam ne moo koy doxal ci boppam ci commission yi ci agenda ordre du jours bi ak ci lépp danañ ko defaraat euh, soppi ko ba nga xam ni benn partie du ko mën a du ko mën a manipuler ci sa intérêt wala ci sa njëriñu bopp danañ ko moderniser ndax booy xool texte yu bëri texte yu yàgg la ëpp na ay ñaar fukki wala fanweeri at danañ ko def ay texte yu méngoo ak jamono pour que sénégalais bu nekk nga mën see gis sa bopp. li am solo ci réforme bi danañ ko def moo di ñu ñu rationaliser dépense yi tey bépp sénégalais bu xool assemblée di nga am lu la metti ñun ñi nekkoon 23 juin ca biti daj fa lu nekk gis li askan wi defal député yi yépp bu ñu ñëwee ba tey ñu naan la douzième législature bii di jeexal. benn proposition de loi rek la def malgré li ñu leen jox ci alal ak ay moyens ak ay avantages xam nga ni loolu benn sénégalais du la neex moo tax bëgg nañu rationaliser dépenses yi ba nga xam ne dootul am ay gaspillage la ñu fay dégager économie ya ñu cay jëlee ñu dugal ko ci loo xam ni dana amal askan wi njëriñ mu di éducation mu di santé mu di njàngu ndaw yi mu di jigéen ñi et cetera et cetera et cetera nga xam ne bu boobaa sénégalais yi danañ ci am njëriñ yi nga xam ni itam danañ ci liggéey. mooy ñu jël ay mesures yoo xam ni yii dafay daal di dem ci euh, euh, nu ñuy fexee ba ñu jàppale petite et moyenne entreprise yi maanaam lu ñuy wax loi programme danañ ko fexe ba voté ko foofu. loi boo xam ni bii askan wi gouvernement bi ci lay mën a sukkandiku wala ci lay war a sukkandiku parce que loi bee koy obligé mu def ko ba mën a dimbali ndaw yi ci xëy. mën a kattanal petite et moyenne entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi parce que économie Sénégal loo ci mën a dégg secteur informel bi daanaka moo ëpp quatre-vingt-dix pour cent te bu ñu ko waxee mooy artisan yi mooy petite et moyenne entreprise yi mooy commerçant yu ndaw yi mooy ñooñu danañu fexe mu am ay loi yu leen encadré yu leen protégé yoo xam ne danañ ko lëkkale ak ak euh, euh, euh, travail emploi ak surtout emploi xale yi ak jigéen ñi ba nga xam ne dinañu transformer loolu ñëpp gis ci seen seen bopp mu mën a lutter contre le chômage ñu fexe ba def loi yoo xam ni day nekk loi sur le patriotisme économique képp koo xam ni jàng nga wéru économie wala développement wala gis nga nu muy doxee da ngay xam ni suñu réew mi li ëpp ci suñu économie nekkul ci suñu loxo ay nit yu jóge bitim réew ñoo ko moom bu ñu yenn woon tey seen alal dem seen yoon réew mi day màbb